bisimila dalee nag jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp rapport OFNAC 2022 bi na ci li gën a fës ci xibaar yi ñu yéene kaay yi xëy yeggee ci àjjuma ak tey jii ñaar fukki fan ak juróom benn weeru avril atum 2024 tribune ne juróom-ñeenti dossier yu tàng jër la ñu tekki taabalal président Bassirou Diomaye Faye moom Serigne Bassirou Gueye mi jiite OFNAC topp ndigalal la république moo fësal booba la république OFNAC la mu santaane nag gannaaw booba lépp rapport yéene kaay bi ne mooy ñu jël corruption def ko crime international journal bi ne coppite yi yi ñu bëgg a indi ca OFNAC dana taxit OFNAC mën na def enquête yoo xam ne enquête yu mucc ayib lay doon te sotti réew mi quotidien ne gannaaw enquête publié nañu seen rapport 2022 ñoom waa OFNAC la ñu ca dëxañ bokk na ca mbiram Prodac ak fond Covid réew mi quotidien ne assemblée nationale yi taq na ca yëf ya bés bi le jour ne ki taq dëgg kay mooy Mansour Faye ndax coowal ceebam la ca Covid ba dellu siwaat na ci rapport OFNAC 2022 booba yéenekaay bi ne booba lépp rapport it OFNAC jébbal na ko procureur de la république fii ak ñuy xool ñan la ñuy topp gannaaw rapport cour des comptes ca woole wàll journal bi ne fukki rapport ak ñett yi déposé nañu ko ci atum 2022 lii quotidien yitte woo booba lépp rapport di rapport 2022 bu OFNAC ne covid baa nga ca litige foncier yaa nga ca coowal suuf li waaye itam fooye usage de faux libération ne ko nan taxaw ci coowal suuf si ndax bambula dëgg la maire yi nekkee ci gox-goxaat yenu jiite journal bi ne commune bu ngande maire ba di du Sow dafa détourné recette ya luwe ci njariñal boppam tracteur ba état may baykat ya boole ca dagg ca suuf sa ba doyal commune bu Sindia yéene kaay bi ne maire ba Thierno Diagne tudd nañu ko ci coow yu bare bari détourné njëgu coopérative bu Sonatel ba ba nuppi indemnité d'expropriation ya mu damm ko ci poosam commune bu Fawne moom yéeni kaay bi mel ni ku naan fa la raay ba téene ndax budget ba ñu jagleel tabax ne mes ne menteng Dakar Presse ne moom kay maire yi ñu jàpp ci coowal suuf ak yeneen dafa bari ba yegg ci lool yéeni kaay bi it sëgg ci rapport nag bi gis ne OFNAC ngay baral jéego gannaaw bu président de la république Bassirou Diomaye Faye santaane ñu fësal lépp luy rapport bi lépp rapport nag yéeni kaay bi ne fond force Covid bi saf na ci sàpp Sud Quotidien ne dëgg la OFNAC dugg ci coowal covid gi gannaaw cour des comptes mi defoon rapport bu jur coow ci réew mi yéenekaay bi ne rapportu OFNAC na ñuñ ca joxoñ baaraam ba noppi jël la tukkee ca enquête na ñuñ ca war a topp ne topp ya nag fan ko gën a séentoo mooy ña jëndoon lekk ya war koo séddale wi ngir xeex mbas ma source aané basa ngay sulli mbóot ya l'observateur ne mbóoti 2022 yépp la sëriñ Bassirou rapport 2022 soxal na Prodac soxal assemblée nationale fonds d'appui au développement du secteur rural ak yeneen ak yeneen le réveil ne dossier yëpp Mansour ci mbiram Covid bi moom jébbal nañu ko procureur de la république di xaar mu def ca liggéeyam l'indépendant ne bu weesoo Mansour Faye ñépp ñañ ca joxoñ baaraam ca booba leb rapport livré nañ leen procureur ndax seeni dossier nga ca taabalam di xaar les échos ne dossier yu tàng jër sax la teg ci taabalal procureur entretien ak réparation oto mbiram covid bi ak mbiram si njayit yéene kaay bi yóbbul nañu ko procureur ak meneen mbir mu soxal Cheikh Seck meeru Ndindi journal bi ne ña waroon a def seeni déclaration de patrimoine nag téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ñoom jóge nañu ca seeni fonction te defuñu déclaration de sortie maanaam ba nu fégalee ca poste yi ñu leen dénkoon lan waroon a def di xayma seen alal fu mu toll ñu wax ko defuñu ko nomination di pal yi président Bassirou Diomaye Faye def barki démb nag le mandat la mu ca gis mooy partage gâteau maanaam séddoo baa ngay tàmbali Walf joxoon ci xëtam gu njëkk booba jamono xët gu njëkku la teem mooy ñu ñu fa yégal ne paluk président Bassirou Diomaye Faye bee tax doomi Sénégal yenn ca bitim bëgg a tabaski si journal bi ne ñooña ba président Macky Sall nekkee ci nguur gi ñu bari ca ñoom woon teg tànk Sénégal li ko waraloon mooy seen taxawaay gañ amoon ci xeexum Ousmane Sonko geeg ñemu àndal waraloon ñu fiché leen wàcc seeni tur aéroport ni ku ñëw ñu jàpp la yéenekaay bi ne gannaaw ba Macky wàcc na jumaay yéeg ñoom ñépp a ngi takk seeni bagage di buuxante ngir tabaskee si Sénégal ca parti démocratique sénégalais booba jamono point actu gis ne Karim Wade ba tey ma ngay ngooy ca génération du concret yéenekaay bi ne Karim ma nga doon waxtaan ak Amadou Ba bañ jubee élection yi ak ka doxoon seen diggante journal bi ne la Karim bëggoon mooy poste premier ministre ak juróomi ministre Wade yéenekaay bi ne Amadou Ba la waroon na dalal waaye du jomaay Tafsir Coy nag yéenekaay bi ne la tax ñu singali ko ba dàq ko ca post bam ne woon mooy dafa lànkoon a li ab communiqué bu doon tuumaal ñaari juge conseil constitutionnel yi ger Wade nag yéenekaay bi ne dañu koo soreel maanaam éloigné ak responsable daanaka gisatut kenn waxatut ak kenn Macky Karim nag point actu ne ñu ngi doon waxtaan ci bile protocole bi ne waaye fi réeroo am dëgg mooy diggante président Bassirou Diomaye Faye ak féministes yi journal bi ne féministes yi lañ mënta woon naasu mooy juróom benn jigéen yi ñu fal ci juróom fukki nit ak benn yi président Bassirou Diomaye Faye takkal ndombay tànk féministes yooyu ca boobaleb journal ñuy ŋàññ doxalinu nguur gu bees gi ak ni nu ci néewalee taxawaayu jigéen ñi jigéen ñi njëkk ci réew mi di première dame nag journal bi ne ñoom ba ñu tabbee seen borom kër ba mu jël fonction ba tey kenn tegatu leen kër yoor yoor bi xëy teg gëtam ci ñenn ñu ñu tabbu bees Bodian Marie Martin Faye ak Khadijatou Diallo journal bi ne ñii ñépp nag seenuk tabb lu nu méritoo la le sacre du mérite et de la compétence la yéenekaay bi wax waxit ci coowal suuf ga am ca Thiès bi ne bu nu mayewul Fandène Diass Kër Moussa ak Chérif Lo dana yëngu ba yegg ci lool booba jamono le peuple quotidien dañu yëgal ne Jamra audience bi président Bassirou Diomaye Faye may Charles Michel président conseil européen yëngal na ko journal bi ne a dalal moom président Diomaye ak Ousmane Sonko l'observateur a ngay laaj ndax seen jéego bu njëkk ci projet bi du weddi seen bopp journal ba joxoon ca yooyu pali ak palin ya ak waxoon di appel à candidature te mel ni ñu ca tàmbalee génn laasit nomination yooyu tam te ci appel à la xëyite woo tuddee ko les premiers écarts du projet ne président Bassirou Diomaye fay daa mel ni ku tàmbalee génn ca la mu waxoon Issa Sall analyste politique di wax ca yooyu les nomination yu tegut ci appel à candidature mu ne appel à candidature moom xalaat ko képpay tax nga a ne woowale doxalin guy jafe lay doon Issa Sall tudd yenn poste directeur généraux yi président Bassirou Diomaye Faye tàmbalee joxi nitam ak ña àndoon ak ñoom ci xeex ba enquête booba jamono mel ni ku naan ñu socialiste yi léegi tey ñu àndaat Khalifa Sall ak Aminata Mbengue Ndiaye journal bi ne ña ngay waxtaan dajalewaat njabootug socialiste gi ña ngay dox jëm ca yéene kaay bi ne njiital taxawu Sénégal Khalifa Sall moo sooke boobale waxtaan gum sekk ak secrétaire général yoon des ginnaaw ci réew mi doxee dellu fa mu cosaanoo di parti socialiste ñu des ak glace mi nu yëgal ne xeex mbënn mi ci at mi nu dëgmal moo waral état bu Sénégal génnee ñaari milliards ak genn wàll vox populi ne fagaru gi ña ko gën a fësal ci ndakaaru Touba Mbàkke Thiès Kaffrine Fatick ak Sédhiou ñu des ak boobaleb yéenekaay bu nu yeggee xalaatu njabootu ñi loru ci manifestation yamoon diggante ak ci li président Bassirou Diomaye Faye wax di ndàmpaay yi leen di jagleel dàq ñu ñu doxal jumtukaay yoo xam ne dana tax képp ku ci loru ñu mën laa dàmp réparer préjudice ba dal sa kaw ñi fi daloon seen kaw di pétrolier yi borom station yeeg yu ni mel yéene kaay bi ne ña ngay rafetlu loola ñu xaar bu ba tey Alioune Tine nag moom li muy xaar gannaaw lii lépp mooy ñu taxawal mémorial des victimes et des martyrs de la démocratie ma ngi ko wax ca Vox Populi journal boobaak yeneen yëgal ñu jéye ji ba am ca boori Koungheul fukki nit ak ñeent ñàkk ca seen bakkan yéene kaay bi ne fukk it am nañ ca ay gaañu gaañu yu metti ñeneen am cay gaañu gaañu yu ndaw source tuddee ba sub démb bi alxamisu musiba mbàbba kumba dikk it ca booba lépp accident la ko waral journal bi ne lépp ngi door ci bi pëna bus ba tojee bés bi le jour dëggal ne pëna bu toj booba yeggee it mooy génnuk àdduna Modou Seck di président tribunal grande instance bu Ziguinchor journal bi ne juge booba deegu bettee la dee ca séminaire gu mu doon teewee ca Saly doomi Nafi Ngom ji Fadilou Keita booba jamono yéenekaay baa nga ñuy xamaleek moom njiital delsee ci jaar-jaaram ba noppi xamal nañu itam ni ci tànki Sonko la topp ndax ñaari soxna la am kenn ka di doomu ndem si yàlla oustaz Barham Diop gànn Gueye may toj Everton moom ndax dana mën a dellu si ci équipe nationale ba doon fi titulaire laaj la wu stade samp fi ak ñu cay am tontu ñu ngi leen di ñaanal yendoog jàmm dig dajee ëllëg incha allah